taxawaay tey ci uh, yenn temps bi. waaw Ngoné Mbaye man maay doomu jaay rek doomu jaay waaw Ngoné Mbaye sama mbokk la sama nijaay ko jur mi sama sang sama mbokk. la bi nga naawee da nga lu baax lu neex lu waroon loolu. non ambiance ka fooree parce que Ngoné Mbaye mbokk la kon bu xewlee ma nga war a ñëw ka fooree ñu ambiance. parce que lépp daal si mbokk la xaj moo ñëw gis leen ngeen toog def benn say mel ni ñu bokk ndey bokk benn baay lan moo waral. non ñun fi toog ñu ñëpp ñu bokk ndey parce que Ngoné euh, sa ak sama mu ne. ñu ñëpp ndaw ñu takk ko mooy daan tey ngeen teew ci tey boo leen ko jox conseil ban conseil amande ah, ko sey bu ma ko jox moom ñu sey parce que sey neexul mais mu sey parce que man bu xoolee ay magam bu xool ay rakam xool ay yaam sey mu sey comme mu demee sey te toog mu taxaw bi sey neexul. kenn ku jigéen bi la ko waral. kenn ku jigéen kii moom ma gis naa am sa tatouage dafa rafet mun ko merci beaucoup loolu rek. lan moo waral nga jël. tatoué bàyyi fi lépp bàyyi fi lépp tatoué génn. parce que man génn laa moo tax. génn nga génn laa waaw sama dëkk lay jaay. ok merci. Ndiaye góoru góor Ndiaye. acca soxna si tur bi nan la. Mati Ndiaye Mati Ndiaye. Mati Ndiaye tey ñu gis la la moo waraloon tey sa teewaay fi nga xam te moom moo si teewaay bi nag lenn nag bilaay lu deret rek deret moo ñu yëngal rek ñun ñëpp xam ko deret yëngal il faut nga yëngat Ngoné Mbaye nekk suñu doom ni jaay ñii nekk ay yaayam toog ay doom ay jaamam toog lu dëgg ñëpp xale yaa ngi nii tubaarkàlla da nga def ba mu baax Ngoné moo ñu deret ñu yàq suñu nelaw mm. dëgg lu neex waaw loolu moo ñu jëral loolu nag xale bi dafa toog ci peegu jëkkër fekk ko fa takk ko du dëgg tey ku xool fii xam tey ji ay mbokk Ngoné Mbaye ñëw nañ ak Serigne Touba Mbacké mais ci temps bi ñu gis ngeen def seen bleu bu rafet te moo choix bi waaw gis nga rek soxu jama soxu Chérifa Couture moo ñu génn fii soxu Chérifa moo ñu génn fii dëgg du neex gis nga rek xale yi def jaw nga mais ba nga naawee tamit damaa tiit ndax gis naa nga feccu rafet waaw damaa mën nag mën naa de ah, damaa làkkatu nag waaye mën naa lool waaw te sama sang yi nag ñoo ko waral nag mais sama tànk bi kenn du ko gis may sa mbaay moo ko waral ngoone mbaay dëgg du neex bàkki Sëriñ Tuubaa may sa moo ko waral sama sang bi sama sang bu ñaawal bi jaragul benn xel dootu nelawat ci fii réew mi toll ah voilà na rafet naa la ko <laughs> yéen daal am leen jàmm nekk leen ci jàmm rek. mais teewaay bi neex nañ torop. ñëpp moom mi nga xamante ne moom di ngóone bu ndaw. Euh, tey boo ko doon jox conseil ban conseil. xanaa mu sëy rek def kon ay ay magam ak ay rakam rek ak ay yaayam ak yaayam jël toog na yaayam dafa sëy du dëgg ñun ñi moom dañoo ndaw mais ñëpp am jëkkër xaaj te ñëpp ñu ngi sey xanaa ñu conseil ko rek mu sëy toog mu te xam naa sax dina sëy na yaayam sëykat la n'est-ce pas. waaw loolu la teefam nag bett moo ni na fi ñëw TFM dafa téye sama sang bi rek TFM quatre ans maa tàggoo ma bi ngay ñëw waaw naa kon jeex na <laughs> kon nag may gërëm waa TFM nag mhm. gërëm sama sang bi nag booba léegi nag defuñu ko lu ñaaw waxuñu ko lu ñaaw dund fa coona dund fa coona defu fa lu ñaaw waxuñu ko mi ngi liggéey liggéey bu rafet mooy sa mbaam yàlla na ko yàlla la fa cat ban koy dégg fi ñuy dégg Pape Cheikh Diallo nga xam naa dañ ko fay dégg na yaam liggéey na loolo xale bi taxul naanu yoru yoru mosta bi mm-hmm. liggéey rek moo ko tax a jóg yàlla na ko yàlla defal jàmm ba muy takk jabar boobaa fii na mel ni su la ba jëkk yee eh, kii abaso moo ko nawloo réew mi ko bëgg xale yee ko nopp may sax maa wax li loolu laa amoon ci may wax eh, <laughs> acca neenaa la ma nekkoon président de la république tey moom laa jox ministre de l'affaire et de la jaljal barki yonent bi acca ñu bàyyi ko mu nuyoo. waaw maa ngi leen di ziar ci nga jàmm sant li nga gàddu mel ni kenkeer yi tamit lan la. lii tubaarkaala mooy bëggal rek fer yi ku ne xam ne tubaarkaala mooy yëngal jéeg defar ba mu baax ndax dañoo nekk ci seddaay te jéeg gi dama bëgg ñu feres tubaarkaala macha allah préparé lépp di bëgg a seet jëkkër ji ma indi ko ci ngoon a jaagewal nag voilà ñu gis ne nga bàyyi ba kii nga xamante ne moom moo di Ngóone Njaay xewle nga indi fer lu waral Ngóone Njaay géwél tubaarkàlla kuy de fer Ngóone Njaay tax ndax Ngóone Njaay koo xam-xam ko ci ambiance koo xam-xam ko ci yëngal kon bu xewlee tubaarkàlla di xewal turandoom bi war naa ko fi mën a indi tubaarkàlla xale yi jënd ko ba mu ne damay ñëw ci fer yi benn par benn dama cee gis ay couleur lu war a couleur yi couleur tubaarkàlla mélange la mélange na am na ñoo xam ne ñi bëgg mélange bi bëgg jaxase ñi bëgg blanc ñi bëgg bleu bi tubaarkàlla ñi bëgg mauve ñu bëgg somo bi ma daal koy mélange rek tubaarkàlla réew mi yëngu. ok ne fer xel day dem ci yi nga xamante ne yu dijj yeeg sew yi lan mooy différence su tew euh, fer bu dijj ak fer bu sew. fer bu sew ak fer bu dijj na différence ndax bu dijj bi tubaarkàlla moo gën mën a yëngal. moo gën a mën a yëngal moo gën a mën a yëngal tubaarkàlla waaye bii nag da koy daal di fekk si rek ñu mën a ànd daal di diwoo foofu toj. mais te keseñ keseñ gu fer lan lay def góor. ah bi muy def góor am na góor ñoo xam ne fer dañoo bëgg fer nag fer daa baax <laughs> Abba no stress Abba no stress Pape Cheikh Diallo moom yàlla dafa ma bëgg ko Pape Cheikh Diallo def ci réew mi loo xamante ni nga ko war a bàyyi xel xol bi rafet dama nit boo baaxee sa xol rafet dama lay bëgg ndax man noonu laa mel Pape Cheikh dama ko bëgg te mosuma koo gis moom rek toog sama yaay tamit noonu la ko bëggee kon moo waxee ci Pape Cheikh Diallo dama ci sawar a wuyu. dëgg mais danga koy tere ci feer yi moom Pape a ah, que à tout moment mën naa ko teral nag. Ah. ak Aba ak Aba ak Aba taal bi borom daar ñoo bokk sëriñ. oustaz Modou Fall suñu oustaz nañ ko bàyyi rek mu daan ñuy waar rek wax ñu lu xew ci ci diina ji. waaw dëgg jamono moom ñoo ànd moom. dëgg yàlla diine ak jamono ànd moom diine ak jamono ñoo ànd. dëgg du neex. dëgg la ba tey ci fer yi dama ci ñëw. tey dañoo toll jamono ji nga xamante ni góor ñi ñu si bëri mën naa ne fer yëngal su léegi ndax boo demee marché góor ñee koy jaay léegi jigéen ñi dañ koy wane maanaam nu mu leen neexee waneetuñ ko fu ñu ko war a wane est-ce que buñ demee ba mu yàgg fer yi dina jëriñ ci dara fer ñi nag ñu a wane seen biir ne jeeg koy wane waaye xale yi nga xamante ni teel a mar a ñu wane lépp ci mbedd bi ñoom la waaye jeeg yi nga xamante ñu ngi seen jëkkër ñu koy wane ci biir néeg bi di takk fer yi di leen riijal tubaarkàlla maasàllaa foofa toj mais fer bëgg nga développé fer muy bëggalee góor bari na ndax jigéen da nga am salañ salañ am cëfër cëfër yaa ngi dégg wuyus ni ku am sa salañ yaa ngi dégg ak sa kesen kesen kon jigéen da nga war a xajam bëgguma jigéen bu yàccaar jigéen da nga war a jonge takk say fer bëgg sa jëkkër tubaarkàlla ba mu bëgg waaye jigéen na yàcc ne sar ak njëkk nelu sa jëkkër a bëgguma ko ci jigéen bëgguma loolu. ban la jigéen a mën a takk fer. jigéen kay à tout fer moom a ne ci ndigg. fer génn sa ndigg man. waaw ndax jigéen sa war warul nekk loo xamante ne dara du fa nekk. warul yara warul wéet jeeg ndiggam du wéet. seen xale jigéen ñi histoire ka ñu takk seen digg dara du ci wéet kon jeeg yow mi ne sa kër di sëy war a topp sa jëkkër ah waru wéet dëgg du nekk. fer yi noonu leen tuddee. fer am na cabaxal am na lépp tubaarkàlla. fer Modou Lo Modou Lo mi am na fi fer. ah Modou waaw. Modou baa ngi nii. Modou Lo laay topp tubaarkàlla Modou Lo yaa ngi nii. Modou Lo yaa ngi nii Modou Lo yaa ngi nii. a ak xayma. Ah, ah Balla Balla Balla xanaa ba jox ko moof bi rek. Pape Cheikh am na moof. Pape Cheikh Diallo am na moof. Pape Cheikh Diallo am na moof. bi rouge bi ak moof bi Pape Cheikh Diallo laa koy jox. Bouba Ndour tam am na fi fer. man TFM laay toog waaye li faram-baaram moom laa moom moom moo koy def waaye wax fi mu Omaro tam am na fi fenn dafa bëgg waali dama bëgg waali ma bëgg la maam Ndiaye sama waa ji sax maa yaay Fallam am na fi fenn. moom sax sama nit la mu nekk ku baax bëgg ma may yaay Fallu maam Ndiaye Savon kon moom tam am na fi fenn. ma ñu ma xam nag. dama lay may sa numéro sama numéro ci fer yi. ah sama numéro ku ci bëgg fer yi rek tubaarkàlla man ngay woo. plus 77 294 41 46. docteur Fera ah docteur Fera waa Kalma bëggal la foofu toj dëgg du neex. li problème bi. li problème bi.